Euh, mbokk yi asalaamaaleykum xam naa dinaa tënk ci wolof donte li may wax ak li mon frère Barthélémy bu wax exactement la même chose donc su ma paree ci kàddu yu gàtt dinaa ko tënk it ci français di commencé ci massawu askanu Sénégal gannaaw bu ñu nuyoo Sénégal yëpp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 te mu leer Sénégal yëpp ni yeewu askan bi ñu wax yeewu askan wi moo incarné tey jii moo tax képp ku bëgg a jóg dal ci yeewu askan wi wala nga bëgg a dal ci lenn ci leader yeewu askan wi defe naa askan bi yëpp ñooy jógandoo taxaw te loolu moo feeñ tey te gëm naa ni bu ñu wéyaloon lii ñu dooroon tey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

mu teg ko loolu ñëpp wax mu ne déet bu ko def def na ko ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te loolu guléet ci senegal moo wax ko fàttaliku ma ci jamono PS donte gone li ci ëpp bokk wala ci jamono Ablaye Wade fu ñu xañee nit mu nekk candidat ci ay tappale yoo xam ne justice la ñuy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 may wax nag senegal yi ne leen ñun jàmm lañu ñu bëgg waaye jàmm réew mi ngi ci loxo Macky Sall bu doxalee jàmm ñu uyu ko jàmm bu ëpp di mu dox bu doxalee fitna nag dinañu fekk fii ñu fay ko fitna bu tolloog fitna ko wala bu ko ëpp ndax ëpp ñu doole ci dëkk bi ndawam yi muy yónni ci télé yi ñuy wax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 yaa mën yaa xam ñooñu ñooy njëkk a daw bis bu mbir mi tàngee lañ ko ñaan mooy na organiser ay élections locale yu dal ci màggal yi kilifa wax na ko ko ci gàmmu gi kilifa wax na ko ko loolu jafewut nañu organise élection yu jaar yoon ci war a gañe gañe walla ñi war a gañe gañe ñu xam ni ñii la askan wi mooy tànn moom dong réew mi continuer dox fii rek boobu caaxaan yi mu nekkee na ko teg fële kon moom lañuy ñuy njëkk a adressé na bàyyi fitna gi muy taal su paree jël avion daw na yem te xam ni moomu réew yi ñaareel bi justice ñu ngi leen di ñaan dafa am fu mbir di toll ci ci réew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 parce que yenn excès yi ñuy ñuy gis yenn ëpp li ñuy gis bu dee da intervenir ci waa opposition amul lu ko justifié fii ci réew mi kon yii ma wax nii dañu am cër bu rëy ci la war a saxal jàmm ci réew mi fii nag ak mille 2024 Macky Sall na xam ni dootu ci ko may fu mu noyee loolu moom bu yeboo sax na xam ni li gars yi naan marquage à la culotte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 kon loolu dootuñu ko fi nangu Macky Sall na ko xam te noppal